waa APM euh, group euh, presse euh, locale bu Mbao ñu ngi noonu kon nag di doxantu rek di xool dëkk bi di Orkadiéré. toujours ñu ngi Orkadiéré toll nii ñu ngi war a dem bu Orkadiéré waaw ki ngeen gis nag moom mooy le directeur de RMB TV. def waaw ñu ngi dugg ci stade bi lañu war a teg maanaam stade bi lan yóbbu si stade bi mu toll waaw dem xool fan lañu war a teg lañu war a positionné bu parce que dañu war a def benn couverture bu doy waar mhm. donc war nañ dem préparé ko xool ñaata kaam lañu war a teg ak lan la laaj ko ok yéen euh, loolu leen di wàcc exactement fii ci Orga Djily waaw xam naa daal ngoon moom ku bëgg a gis image yu set wicc image yu am qualité mhm. son am qualité ak li fi xew lépp nga bëgg koo xam rek da ngay xaar euh, équipe bu APM. muy association presse bu mbaaw ñu boole bokk ndey ak baay. war na leen euh, bu mag si wàllu confirmation la ba tey. ci ak euh, Amadou Ba ak ni ko Abdou Karim Sall mhm. réew mi. moo waral meeting bi kon si allah waa dina leen wan lépp lu fi am ngeen xaar ko ci seen ay passe officielle tamit nag muy ci banlieue muy Mbaaw Info TV ba ci BN TV Mbaaw Mbaaw banlieue TV. RMB TV seen leeral da ngeen am kon information yi mat sëkk fii ci Orkadiéré ànd ceeg monsieur le ministre de Abdou Karim Sall incha première mais liñ ci liñ ci mën a constater rek mooy presse locale bu Mbao dajaloo def benn say tuddee ko APM maanaam association presse bu loolu lépp day firndeel rek ni ay doomu Mbao dañoo mus a nekk benn. Hmm. pour mën a liggéeyal seen commune. te association presse bu mbaaw bi incha allah dina fas yéene amal liggéey bu ama ama am solo au niveau de la commune waaye tamit au niveau national voire même international te loolu di ngeen ci di ngeen ci découvrir dara incha allah. ci kanam incha allah ñu ngi ci installation yooyu ñëw di xool stade ñëw fii au niveau de Orkadiéré ngir euh, amal fii am solo naka ngeen bon instant bii ñu ngi yaa ngi yaa gis euh, ñu ngi préparé Euh, ñu ngi si stade bi nii. Mhm. li nga xam fii la war a amee. Mhm. di ñëw di xool installation yi. Mhm. li tax parce que dafa am solo. ndax presse souvent dañuy dañuy fàtte ci installation yi parfois positionnement bu ñuy teg. parfois éclairage yi parfois le problème des sons et trucs. donc pour parer à toute éventualité. moo tax ñu ñëw. xool éclairage yeeg yooyu waxtaan ñi nga xam ne. ñoom ñoo yor wàllu woowu wàllu technique woowu pour ñu bàyyi ñu xel ñun presse bi. ndax image yi aussi. dafa war a wër àdduna. ndax du événement bu ndaw. donc on est là pour veiller au grain. ndax euh, dañuy waaj def live boo xam ni euh, live bu extraordinaire la avec quatre caméras kon loolu foo nga xam nan la sa scène mel. fan ngay positionner sa caméra fan ngay jëlee sa son yaa ngi dégg. Mhm. aussi déplacement yi nan lay demee. Mhm. repérage boobu la ñu ñëwoon def si léegi mais fu mu toll nii moom.

d' accord avec des plans extraordinaires incha allah. nga mën a sa bannière teg sa logo. teg lépp incha allah.